min alsheytaan alrajim bismillahi arrahmani irrahim wala hawla wala quwata illa billahi alaliyi alazim wa salla allahu ala ashrafi alxalqi sayidi albashari muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ñu ngi leen di ziar ci weeru koor bi di leen ziar ci seen jataay bi ñu leen daan defal ci seen émission Shukran di leen ko defal ci seen fi ngeen ko miin a jotee muy dakar midi point net Euh, di sant ñu baax ñi nga xam ne ñoo nekk ci xarala gi ba ngeen mën a jot ci wax ji di sant kilifa gi nga xam ne moo ñu may capacité ñu mën a toog wax fi liñ bëgg a wax euh, mbokk yi ñu ngi leen di sant bu baax fu waay mën a nekk yàlla na yiwu yàlla wàcc ci sa kaw tey nag ñu toll ci dix-septième jour muy bis boo xam ne euh, bis bu sacré la ci lislaam ci weeru koor ay góor yàlla yu amoon volonté yu jaayante woon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te la ñu jaayante woon ak moom di dëgg ci seen biir mbokk yi ñu war ci dundal muy bis boo xam ne bis boo xam ne lislaam am na ci victoire bu rëy rëy rëy ndax yàlla sunu borom bi sax subhaanahu wa taala keroog dafa participer maanaam bu ñuy wax dañ naan yàlla dafa sob ah, mbokk yi muy bis boo xam ne nag moom la lislaam njëkk a tëgg champ de guerre muy bis boo xam ne bis bu doy waar la ah, guerre bi nag doonoon guerre boo xam ne du provocation du guerre boo xam ne sax dañ ko tëgg ngir mën a tooñ déedéet waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla ci yónnee ci ay bokkam daf ne ko woon wa an anzir asiratakal aqrabin na nga waar sa bokk yi nga xam ne ñoo la gën a jege yàlla dogal mu doxal daawa bi waaye ñu weddi ko lool weddi gu tar euh, biñ ko weddee weddi gu tar xeexee nañ ko nu ne sottiwul ba yàlla dogal mu jóge fa dem taif ci ay mu wuti ndimbal euh, sottewul foofu mu dawaat dellu si ndax ba mu demee taif dañ ko boole ak xale yeeg dofi ñi di ko sànni ay xeer ndax daawa bi mu doon woote ñoom xajul woon ci seen bopp ndax ku yor ñetti téeméeri yàlla ak fukk ak ñett euh, te li ngay jàmbat sottiwul ñu xëy indil la jenn yàlla pour nga comprendre ko ndimbalal yàlla rek moo ci laxasu moo tax juboowul woon ak ay bokkam demoon nañ sax ba proposé ko ne ko su fekkee alal nga soxla wala bu fekkee nguur nga soxla nga wax ñu ko ñu dajale li ñu am jox la alal ba dootoo jàmbat alal su fekkee nguur nga soxla ñu dajaloo def benn communauté nga jiite ñu waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca mbaaxam nga ak xam li ko yàlla jox ni mu toll mu ne leen su ngeen xotti woon jant bi teg ko ci sama loxo xotti weer wi teg ci sama càmmoñ yëkkati àddina ak li ci biiram jox ma du teema woote ne yàlla mi ma bind day kenn la ah mbokk yi nag mu mel ni xatal nañ ko ca lam yi woote ba yàlla dogal ñu dem ba mënatuñ ko supporter ñu ne léegi nit ñuy def mooy nañ tënkaloo euh, giir gu nekk génn fukki ponkal ñu tëru ko ci biir buntu néegam bu jógee fajar ñu dal ci kowam faagaagal ko li muy woote yem fi waaye nag booba yàllaa ngi naan ko ñi ngi pexe waaye man yàlla maa ngi pexe te maa leen dàq pexe euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ngoon gi la ko li koy dikkal dikkal ne ko sa borom jox na la ndigal ci nga génn moo tax amul benn yonent boo xam ne ñeme ngaa def benn rañaan Euh, ñeme ngaa def benn gàddaay lu dul ne sa borom moo la ca jox ndigal kenn rek moo ko def wuuteeg boromam ci ndigal ndigal li dafa yéex a ñëw mu yonent yàlla sa moo tax bi mu demee ca gaal ga ñu wantale euh, bant yi mu dal ci kawam ñu sànniwaat mu dal ci kawam ñu sànniwaat mu dal ci kawam ñu ne góor gu rafetee nii yiwee nii taaroo nii wax dëgg yàlla ëppale nañ di ko sànni ci gaal gi ah yonent yàlla yuunu ne leen gannaaw damaa mooy sama ndigalal borom du ma xaar sax ngeen di ma sànni du ngeen ma gën a gore daal di cëppeelu ci ca biir géej gi bi mu cëppeeloo yàlla jox ndigal jën wa ne ko wannal ma yunusa wann gi nag bu ko jàppee ab añ bu ko jàppee ab reer kaso laa ko bëgg a def pour yow nga tëjal ma ko foofu ba ma soxla ko nga génneel ma ko wax nañ ne tëdd na fa ñeen fukki fan ci ndimbalal yàlla ci la soog a génn euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam biñ ko tëroo ci buntu néegam yàlla jox ko lam koy jox wax ko lam koy wax mu génn jàng suuratu yaasin am na ñu wax ne suuratu yaasin la jàng ba ca fa axsaynaahum fahum laa yubsiruuna wis ko ci seen kaw keroog wax nañ ne yéeféer yi dañ faa nelaw ba biddanti ñi nga xam ne ñoo doon dem ci marché bee ko dugg ci dëkk bi ñoom ñoo mujj dikk fëggale ne leen jóg leen ñu jógee ñi ngi fekk seen yaram yaa ngi fees dell ak suuf ñu xam ne ki ñuy tëru du koo xam ne ku ko tëru jàpp ko ndax booba ndigal li ñëw na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak sayyidina abi bakarin siddiq ànd ak moom ñu jógee fa jaar ca xeer wa nga xam ne làqu nañ fa yéeféer yi topp leen wax nañ ne bokk na ca ñeen yebaloon suraqata ibnu malik ca la bokkoon ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne yebal nañ leen ngir ñu dab ko waaye ba ñu ko dabee yonent bi wan leen ay mujizaatam suuf nara a wan na suraqata ibnu malik ci jàmbaar joo xam ne ñëpp xamoon nañ ni ki ko am fit la keroog bi muy dem yéeféer yi bokk na ca lañ dajale woon dañ ne ko daañu la jox téeméeri giléem daañu la jox téeméeri junniy diinaar boo reyee yonent bi moo xam nga rey ko mu ba ko fa moo xam nga rey ko indi bopp bi loo ci mën a def daañu la defal lii soo demee bu la reyee tamit li ñu la dig daañu ko jox sa njaboot ngir rek bañ gu ñu bañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye yàlla mottali mission bi euh, bi mu demee dellu si tuub gaa yi ne ko yow dañuy njabar gi jàpp na la jóg def seen ngàngoor toppal seen bopp yonent bi biñ ko toppee ba ci xeer wi euh, yàlla ci ay kéemaanam mu dogal jargoñ bi dikk rab am tàgg ci buntu pax mi pitax mi tàgg fa nen fa biñ dikkee ba tiim pax mi xaw tuuti sax buñ xooloon gis waaye yàlla mëdd na seeni bët ba mënuñoo gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, bi ñu defee loolu keroog sayidina Abu Bakrin Siddiq tiit na tiitaange joo xam ne yonent bi di ko dalal di tàpp tàppal naan ko yàlla mi ngi ànd ak ñun ci biir xeer wi inna allaha maana loolu la ko wax moo tax yonent yàlla Moussa ba mu tiite inna ma ay loolu la waxoon sama borom mi ngi ànd ak man keroog daf ne ko sunu borom mi ngi ànd ak nun moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn du moom euh, wax nañ ne bi ko gaa yi tëroo gisuñu ko ñu wàññee dem yonent bi eggali mission ba dugg dinatul madinatul munawwara ca atum ñaareel ma ci biir weeru koor muy fukki fan ak juróom-ñaar ca la ko yéeféer yi euh, yëg ne yonent bi yëg ne Abu Sufyaan jox nañ ko njëggum màkk mépp jox ko seen capital mu demoon Cham uti marchandise di wàññeeku ñu war koo kar ca Badar yàlla dogal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy attaqué ji Abu Sufyaan tooñ taxul woon bëgg xare taxul woon waaye la tax mu di ko def stratégie de guerre la mooy lan mooy saxaaba yi nga xam ne ñoo jóge woon di muhaajiroon yi nga xam ne ñoo jóge woon Màkka booba ñëw nañu Medinatul Munawwara ànd ak moom andi wu ñu benn marchandise andi wu ñu benn bien seen lépp ña ngi ko bàyyi fële yéeféeri confisqué ko euh, comme yonent bi yëg na ne jox nañ seen capital Abu Sufyaan mu demoon saam jëndi woon ca njëgg ma ah yonent bi jóg ne nag na gaa yi jóg leen ngeen kar ko su ngeen demee ñu fexee duma ko nangu suñuy bien ah bi ñu demee nag Abu Sufyaan yëg ne ah, yonent bi sallallahu alayhi wa xam na jot na xibaar ne moom dana jaar Badar Abu Sufyaan yebal ku ñuy wax Abu Damdama ca la ko yebal mu dem Màkka yuuxu yéeféer yi ne leen bu ngeen yéexee Muhammad dana jël seen capital ndax kat ma ngay dab Abu Sufyaan ca la Abu Jahlin jóg ñoom yéeféeru ku faru Màkka yépp ñu jóg nekkoon nañu junniy gawar euh, bi ñu demee daje ak moom badar nag xew-xew bu rëy xew na fa ndax yi euh, jullit ñi keroog bi ñuy dem yàlla dogal na ñetti téeméer la ñu woon ak fukk ak ñett ki leen defoon ñetti téeméer ak fukk ak ñeent muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ashraful xalq euh, bi ñu demee yàlla dogal pàkk ba nga xam ne fa lañ war a xeexee am na nu mu bindoo du ñu mën a jekku terrain bi dëgg te booba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dogal yàlla dogal na jullit ñi ñu ngi amoon juróom-ñaar fukki gëléem ak ñaari fas ñaar ñi ci des ñëpp dañoo dox tànk ko ak li muy metti métti teewul dañu màtt koor boole kook naaj wu tàng jër moo tax ñun bu ñu dee jàmbat koor xamuñ sax li xew moo tax keroog ba loolu amee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daje fa ak ñoom yebal koo xam ne daf leen a yëddu mu laaj ko ne ko ñoom ñaata lañu mu ne ko li ma ca xam daal mooy danañu lekk téeméeri giléem danañu lekk téeméeri gileem yonent bi ne ko kon junniy nit lañ te ñoom 313 képp la ñu woon ñu war a tampaloo ak ñoom ci xare boo xam ne ah fa tabaarakallahu bu ñu leen maasalee lislaam yem fa yonent bi yëkkati loxo ñaan yàlla yàlla wax ci alquran ne ko wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillatun fattaqullaha laallakum tashkurun yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne ko waat naa ne man yàlla dimbale naa leen ca badar fekk na keroog ngeen doon kuréel bu tuuti man yàlla ma dimbalee leen ay malaayika yoo xam ne bi ñu egsee kuñ dóor da ngay mel ne sagar wu mokk ndeysaan da ngay gis yéeféer boo xam ne day tampaloo akub jullit jullit bi day jékki-jékki gis yéeféer bi ci suuf mu mokk rupp malaayika yi di leen def noo xam ne di leen nappaaje comme xale boo dugal ci biir foo xam ne ay melantaana fa nekk mu di leen jogge lépp yàlla jàppale ko jullit ñu sotle leen ko moo tax yàlla wax ne istaqulu lil muminina alam yakfiyakum rabbukum an yumditkum alam yakfiyakum an yakfiyakum an yumiddukum rabbukum bi salaasati alafin min al malaikati munzalin yàlla nee na man seen borom subhanahu wa taala maa leen sotle ñetti téeméeri ma ñetti junniy malaayika yoo xam ne dikk nañ bokk ci xare bi xeexle leen kon mbokk yi jullit ñi keroog am nañ ndam loo xam ne rey ci yéeféer yi lu bari keroog wax nañ ni ki gën noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñëpp des nañ ci xare booba te bi ñuy dem ñoom dañoo jàppoon ne dañuy egg rek massacre jullit ñi wàññeeku ndax boobu mere nañ yu yonent bi mer moo xam ne kenn xamul nu mu toll waaye nag bi ñuy pexe yàllaa ngi pexe te yàllaa dàq pexe ñëpp yal nañu yàlla defal dégg ak topp euh, tuyaaba jooja gaa yi amoon ci badar yàlla nañu ci yàlla wisaale ndax seen xëy moom ak jullit ñëpp xaj nañ ci yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu